jërë ngeen jëf ginnaaw démb nag ca Popenguine Ndayane ak maraton bi nga xam ne nag ñii di waa direction générale des impôts et domaines amal nañu ko si juróom benn communes yi nga xam ne nag ñoom lañu ñu si yëf muy lan sama kayitu kër sama kaaraange tey nag ñu nekk fii si commune bu Malicounda ci ab reportage bu am solo boo xamante ne code ouest xibaar ak seen rajo FM defal nañ leen ko topp leen ñu ñu dem xooli reportage bu am solo bi leen fi defal ak waa direction générale des impôts et domaines. di rafetlu eh, visite bi nga mission bi nga xam ne tey moom la waa direction générale des impôts et domaines ñëw def si ci Malicounda mooy eh, opération sunu kër sunu kayitu kër sunu kaaraange. Eh, nekk loo xam ni dafa bokk ci objectif le maire Maguette Sène maire de la commune de Malicounda ci première déclaration ku dégg dafa waxoon ni sécuriser le foncier dans la commune de Malikunda. donc tey mission bi dafa ñëw pour euh, gunge ñu ci loolu jàppale ñu ci loolu. ñu gis ne aussi askan bi la population euh, seen bëgg-bëgg la waaye xamuñu fu ñuy jaar donc tey bu fekkee mission bi dafa ñëw wàcc sur le terrain dem ci wetu population bi sens de sensibiliser pour loolu je crois que dañ koy duñu man lu rafetlu ko euh, mais wax aussi ñun commune bi pare nañu pour ànd ci ak ñoom ci sensibilisation pour que nit ñi. mën a xam fan la ñuy jaar ba euh, au delà euh, affectation yi ñu yore muy seen i kayit ñu mën a am euh, ñu mën a am comment dirais-je encore mën a am bàyyi ba ba kër ñu am titre foncier parce que loolu da leen permettre non seulement ñu nekk ci kaaraange seen moomeel nekk moomeel gu wér waaye également amat yenen avantage yo xamné dañ ko mën am lu toll lu mel tay dem banque euh, def déposer sa euh, garantie maanaam prêt mën liguey yok sa koom-koom loolu je crois que tay askan bi duñu ko bañ dañ koy lu ñun ñep euh, li ci am solo rek moy ñun tamit au niveau de la commune ñu dalal xelu wa direction des impôts et domaines ni len bu mission bi jallé ñun tamit dañ continuer ci suñu côté sensibilisation bobu avec les chefs de village les conseillers les notable ba euh, impôt domaine nekk loo xam ne dafay jige askan bi nekk ci wetu askan bi donc ñi ngi santaat bu baax euh, ki nga xam ne mooy la chargé de la communication ak équipe am ci visite bi nga xam ne wala mission bi nga xam ni moom la ñëw Malicounda donc loolu rek laa ci amoon comme kaddu ci tout le maire Maguette Sène ak le conseil municipal yëpp di leen sant leen gërëm ci opération bi ngeen war a déroulé tey di leen ñaanal aussi euh, ngeen déroulé ko ci jàmm ak salaam ci biir Malicounda à travers euh, plan de lotissement yi nga xam ne ngeen ciblé au niveau de Falokh ak Saly Aérodrome merci jërë ngeen jëf opération bi nag tax koo jóg lu jàppale nga xam ne am problème ci seen wàllum këyit këyitu nga am sa terrain nit ñëw jógee fa doole nangu ko wala nga am sa kër mu am problème nga ba sonn dafa mujjee perte wala nga nga gis koo xamante ne da nekk ci këram jébu ca ñu génne ko fa ni ko moomatoo ko wala nang nañ wala teg nañ teg nañ ci loxo loolu na leen bëgg mu jóge fi moo tax waa impôt domaine opération bi nga xam ne mooy sama këyitu kër sama kaaraay yëpp jàppale leen léegi nag papier yi nga xam ne moom ngay war a fournir moo nekk ni suuf muy acte administratif bi nga xam ni papier bi nga xam ne mairie moo la koy bindal soo yoree sa ak sa photocopie demee au niveau des ko ku ci nekk nag koo xamante ne am nga ci tonto wala nijaay wala bàjjen wala tante boo xamante ne am na problème bu am kayitu kër nga baaxee bi incha allah mu dem daw gaaw ci au niveau des impôts am nekk ci jàmm na a jàmm yaay booy merci beaucoup. waaw ma jóg dem ville. waaw léegi nag bi ma retourné ma fekk euh, suñu waat koñ bi daal ñu ne ma yow da nga jaay kër gi ma leen jaayu kër gi ndek dafa am ko fa gaare woon. léegi bi mu gaaree ne ma. kër gi dañ ma koo jaay. man ko ban kër la ñuy jaay. Mhm. man jaayu ma te maa moom kër. léegi ñu toog la ba mu yàgg mu ne ma kon nag jox ma sa kayitu kër ma ko déedéet comme dañ laa jaay ki la jox kër ki la jaay kër na la jox sa numéro kër mu ma kon nag maa ngi dem ma ne ko jëlal sama numéro boo demee nga woo ma jusqu'à présent gisuma ko Lol, rabbi ma gisee nga ne sama keur ma na len na ñew ñëw ba xam affaire bi mu demee légui nak ma diko ko gërëm di ko sant parce que jamm laa ci gis té dina li mu ma wax ni day tax damay dem ba fofu bu ko défé mu gën fa jël ay renseignement ñu wax ma nu mu démé parce que bu ma négliger won rek kon léegi nii léegi nii dama waaw keneen de voilà loolu moo tax nag loolu mo fi bari mhm. moo tax ñun ñu profito di def li pour dimbale ñu te gis nga dagguma la de gis nga bima waxé waxee dafa am ben xalé bu jigéen tam bu daw si mama ma nga ma wo parce que tamit la def suñu koñ fan fan yi day ñew and ak nit né la ma jënd kër mu kër loolu nag problème boobu mo waaw nak nag moom nañu jug di wacc ci terrain bi pour dimbalé ñen ñi parce que ah. lool mo ndax loolu ñàkk xam la rek té di nga def lu bax la ma rek lu bax la nak fi ñu bari xamu ñu mu démé té da ngay am sa kër ñaari fan ñet nit jóge fële ñew né la ma ko mu jël nangu ko de force lo ci man waaw te bu amoo kay noy def waaw lool moo tax te amoo ko la jappalé profito mën a am seen këyitu bop waaw mën a seen kër seen bop inshallah bo xasse ba am sa kayit kenn du ñew né la ma mom fi di la ko xëjoo par force inshallah fo dem ci yoon tamit bo wone sa kayit kenn du la mëna force inshallah inshallah gënal moom kay lu neex la lu baax. waaw moom kay jàppale ngeen population bi bu baax. moom kay bu lii sottee moom lu moom dañ leen di sant rek di leen gërëm. dañuy am amuñu seen fay daal. jërëjëf waaw jërëjëf merci. on est maître et ñu ngi kontaan ci yéen ndax ñu néew di doole nangu nañu suñuy kër ci yu mel noonu te département de Mbour aussi sonn na ci coono boo xam ne et vraiment euh, ku def lu mel li ka ko xalaat war nañ ko remercier devant tout le monde ndax itam ñun ñi nga xam ne peut-être loxo jotul suñu gannaaw lu mel ni boo ñu ko defalee du def leen lu dul sant leen gërëm leen yéen xale yi koy dox yàlla may leen jàmm may leen wër ndax lii xalaat bu baax la vraiment ah, gis ngeen dëkk bi boo demee ci dëkk boo xam ne peut-être seen xalaat yëgul foofu ngay mot leen leen seen xalaat mbaa eh, seen pos eh, eh, amul bëgg nañ ko mais ñu mun yéen boo leen ko wàññilee ñi mënuloon jéem ñi xamuloon xam Vraiment, aussi, c'est très important. Vraiment, on est très content et <laughs> on est vraiment fiers de vous. Merci beaucoup. Vraiment, Merci beaucoup. Nous avons fait ngir euh, jëmmal li ñuy wax caravane opération sama këyitu kër cœur bi ñu ko lancer le 31 à Saly opération sama këyitu cœur du lenn lu fexé a été ñi nga 31 yor nañ ay yi nga xam ne amul kaaraange ñu xool nan lañ koy kaaraangelee ñu jógee ci li ñuy wax affectation ak tiitre précaire fexe ñu am bail ñu am droit de superficie wala ñu am titre foncier su ko defee ñii nga xam ne dañuy am këyit yu kaaraange dinañu mën a dem ci banque lépp e développer seeni activité dinañu mën a contribuer ci financement développement localu commune bi impôt domaine comme que am na service technique yi nga xam ne am nañ jumtuwaay yi ñu ci war ñu ànd ak commune bi Euh, accompagner leen pour kaaraangeel suuf si ci wàllu cadastre mais kaaraangeel ko ci wàllu droit muy ci wàllu domaine tey loolu moo wundu opération sama kuyitu kër waral tey suñu teewaay fii ñu ànd ak mairie bi dem ci askan wi xamal leen nan la ñuy def ba am këyitu kër bu mucc ayib mu mën a doon seen njëriñ mën a doon njëriñu Sénégal donc loolu mooy suñu teewaay ñuy remercier waa mairie Malicounda ci gàttandu bi ñu gàttandu ci nangu bi ñu nangu bokk ci phase pilote opération sama këyitu kër ak ci yombalal bi ñu yombalal liggéey bi ànd ak ñun dem ci askan wi wax ak ñoom donc euh, ñu ngi leen di jaajëfal lool moo nekkoon ci gàttal kàddu yi ñu ciy rotal jërë ngeen jëf. mbokk yi kon loolee mooy reportage bi nga xam ne defoon nañu ko fii ci commune bu Malicounda loolee nag ci fàttali rek waa direction générale des impôts et domaines moom moo leen ko mayoon ngir naka ngeen di def ba mën a aar seeni suuf ñoŋal ko ba mu ñoŋ. loolee nag askan wi yëpp war ci farlu bu baax a baax dem si direction générale des impôts et demaine bu Mbour dal di fay yóbbu kayit yi nga xam ne moom la ñu leen laaj ngir ngeen mën a ñoŋal seeni kër. topp leen ñu nag si juróom benn commune yi nga xamante ne nag moom la ñu war a dem muy sama kayitu kër sama kaaraange.